santé. Comment ça va La rubrique. il faut que ça aille. Waouh, il faut que ça aille très bien. Donc, euh, comme d'habitude, hein, comme tous les jours, hein, santé, on est là pour euh, parler de ces maladies qui, en général, euh, voilà, nous, nous procurent beaucoup d'inconfort et il faut qu'on trouve toujours la solution madame autre solution pour mon madame euh, euh, maanaam mucc ci feebar boobu noonu wala jéem ci dal xool dal nan la def rek ba ba jàmm dellu siwaat du dëgg waa kay donc nak tay ñu fas waxtane mycose madame moy affection de la peau infection de la peau yooyu nga xam tane ay champignon ñokay def mm. ah nga koy gis d'habitude euh, fay da ngay am ay genre plaque ci sa yaram comme genre voilà comme genre gomme bo xam tane du gomme mais <clears throat> ay ay ay xawma ma futtantaan lañ koy wax xawma ma daal genre yooyu noonu nga xam ne day nekk si yaram ci sa ci sa deru yaram bi parfois mu feeñ ci sa ci sa ci sa kanam sa partie yaram yëpp daal maanaam mën na cee génn ah muy tamit mycose yoo xam te ne mën na nekk ay mycose vaginale aussi donc ay ay voilà ay infection yoo xam ne ay champignon ñoo koy joxe donc loolu noonu euh, di nekk nag loo xamante ne dafay désagréable day xasen la plupart du temps te am na ci ñoo xam ne sax day lelli seen der dañuy dem voilà day xar gis da ngay gis des fois ci diggante tànk yi nii am na ñoo xam ne dañ koy am seen diggante tànk yi d'habitude ñu naan ay ndoxum cité ak ñoomin seen mais ay champignon la man dama ko weex nii boo ko waaw waaw te muy nekk si diggante loxo yi diggante tànk yi des fois nga xam ne dafay xar xam nga muy saf nag di saf parfois mu génn ci sa kanam mais am oh. dina dem ba benn niveau boo xamante ne ci làmmiñ yeeg yëpp daal maanaam partie yaram bi mën na ko laal oh. am na ñoo xam ci seen weew yi lay nekk xam nga donc ñu bëri dañ koy woowee ay ndoxum cité ak ñoom seen ma ay mucus ay champignon champignon moo koy def donc muy euh, ay

métti nag yii nii bi bi nekk ci gémmiñ bi moom doo sax mën wan na. Oh, day tàng day tàng day day day. saf voilà da ngay mel ni ku oh, sofe loolu moo gën a métti sax sofe xam nga sofe sax am na nu muy demee 2 3 jours mu bàyyi mais lii habituellement bu la jàppee tant que jëluloo traitement bu intense du la bàyyi. parce que dafa gonflé ba nëbb sax voilà euh, dafay dem ba si ci biir dafay xonk cuy ba pa def ay ay ay plaques yu weex gis nga ni mu defee ay plaques yu weex nii ci biir nii donc lii ay champignon la donc muy benn infection boo xamante ne dafa délicate donc naqaree faj nag am na ñoo xamante ne dinañ def ay traitement mais man xam nga affaire bi nekk à gauche la image bi nekk à gauche mooy loxo bi xëpp waaw man daf may arrivé ay mois de septembre mais du mycose man sama non ça dépend am na ñoo xamante ne peau buy xëpp moom dafa bokk si ñun parce que parfois sa peau dafay muet dafa mel comme jaan rek ni muy jékki-jékkee muet si mi yaramam donc loolu ci la bokk à force voilà non non mais wax la dëgg jaan day à force voilà à force ngay ngay ngay utiliser yenn produits yi donc couche bu bu baaxul bi ci kaw yaram bi dafay dañ pour génnee couche bu baax bi maanaam dafa mel ni nga am euh, nga nga am nga nga teg benn benn benn kii benn der si kaw yaram bi rek der boobu il faut mu dañ pour que der bu liis bi mën a ñëw loolu la quoi ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne euh, feebar la di infection la feebar la au fait ay champignon la yoo xamante ne dafay def ay dafay def ay plaie plaie yoo xamante ne dañuy putantaan la am moom ci tànkam bi non putantaan xaw ma bon xaw ma ndax ndax ci olof putantaan lañ koy woowee mais euh, il faut pas confondre aussi xam nga putantaan mooy loo xamante ne par exemple da nga am lu la lakk mu def futu. loolu ngay wax wala butantaan mën na baña a lak mën nga xey suba teel rek. mu génn sa tank te ni ni lay mel. nii lay mel waaw bon après ci ci ci voilà ci donc lépp ay mycose la rek donc moy euh, ay ay genre gomme lay def yo xamante day xonku ba paré euh di xasan. Hmm. la plupart du temps day dégg day am ay démangeaisons yu métti donc tu as tendance tout le temps à vouloir di wokkutu doxala te soo koy wokku day neex plus ngay wokku muy gën di dem ba pare c'est une c'est des maladies contagieuses contagieuse moy manam mën nga ko am di fréquenter koo xamante ne amu ko nga wàll ko ko dafa mel ni solante dal booy sol dal koo xamante ne dafa am genre mycose yi nii tu as de fortes chances à ce que mycose bi mu wàll la voilà donc habituellement dañ lay jox traitement donc ce sont d'habitude les dermatologues yi ngay dem seeti ñoom ñoo lay jox déjà traitement cutané bi nga xam ne maanaam pommade yeeg yooyu noonu nga xam ne mu nga ci diw pour mun a faj kii bi mais dañ lay joxaale ay antibiotiques yoo xam te ne da nga koy naan pour mu mun a rey champignon bi ci biir parce que bu ñu reyu les champignons bi ci biir moy manam do traité won te peau bi fi ba suba di ci def ay kii ak yooyu am ben voilà du baax maanaam da koy rey interne rey ko externe voilà donc muy traitement bu intense bo xamné dang koy jël lepp dépend na nak ci degré wu mycose bi fi mu toll amna na xamné xam seen mycose yi voilà ça sort un deux maximum 3 après ben traitement bu ndaw vite fait mu dañ amna na ñoo xam ne bu xasee ba nek ci seen deret c'est ça devient compliqué te li li ci doy war moy picc bi fu mu am rebord yoy bo woké picc bi ndox bi bu tojee

dañuy traiter non seulement euh, deret bi traiter peau bi donc il y' a énormément de de trucs yoo xam te dañ ko war a def suivre ko bu baax parce que kii bu ñu ko suivre le bu baax gis nga lii mën na dem ba mu ñàkk ci tànkam. dëgg la mën nañoo dem ba amputé mën na dem ba ñàkk ci tànkam tu vois. donc ñi nga xamante ne dañuy am habituellement ay tànk yuy xar diggante tànk di di weex. di di di mel ni ay di saf tout le temps ñu koy kii nañ dem seeti ji dermato parce que boo demee ci dermatologue bi moom dina la mën a wax exactement ban genre mycose nga am bu fekkee ne c'est un traitement à faire euh, manam su dañ la war a teg su traitement ak yooyu yëpp dinañ la jox ñoom traitement bi nga xamante ne mooy baax mooy adapté pour loolu pour nga faj ko bu fekkee da nga war a utiliser ay pommade ay. Euh, injection voilà ay lu ne am na ci. am na ñoo xam dañ leen di piqûre pour que mu mun a mu mun a mu mun a dañ am na ñoo xamante ne dañ leen di jox euh, ay antiseptique mm-hmm. Ils sont obligés de se laver avec des antiseptiques. Je vais même citer ben produit citéal. Oui, et citéal, ak micostère, genre yooyu Donc ce sont des des des antiseptiques yoo xam habituellement moom lañ leen di jox dañ leen di tere sax ñu laal saabu tere ñu am parfum tere leen ñu voilà affaire yu bëri dañ leen koy parce que seen yaram du ko supporter te plus ngay laal produit yooyu plus ce mycose bi di gën aggra aggravé sans compter nag traitement bi bactéries la ay. waaw champignons, la champignons, rek comme genre virus la rek euh, bon en fait. Euh, Maïté est-ce xam nga ne boo demee hôpital Le Dantec. Mhm. dem ci dermato cas yu gën a graaw yi nga fay fekk. waaw si Sénégal fii. non mais non boo demoon ci dermatologue moom da ngay boo demoon ci dermatologue da ngay bàyyi àddina. yu gën a graaw yi am na Sénégal te xam nga lan moo koy gën a indi da ngay gis koo xamante ne dafay am lii début bi au lieu mu jug directement dem ci dermato ñu teel ko ko fajal day dem ci benn paa. dafa ndoxum siti la ndoxum siti la. par exemple bu ñu la joxee reenu dànk xaw ma nga naan ko même bu dara nekkul yow bu génn sa yaram subitement affaire bi dafay commencer di génn ci sa yaram. effectivement xam nga ne yooyu wóorul. xanaa xam loo am na ay diw yoo xam ne sax li nit ñi xamul. Mm-hmm. am na ay diw yoo xam ne ne boo ko laalee rek mën na la indil ay mycoses. beaucoup de beaucoup de gens ne le savent pas. parce que ah dafa am ay corticoïdes yu bëri dafa am ay voilà dafa am ay ay ay ñii produits à base d'hydroquinone yi ngay gis nii moo tax ñu koy tere. c'est des produits yoo xamante ne si susceptible à te faire à te donner des champignons yoo xamante ne day dem ba pare loolu direct ci deret bi lay nekk comprendre nga après ñeu affecté ce peau bi ñi ngi gis d'habitude xéssal xeesalkat di nga jékki-jékki gis ben xéssal ba di jékki-jékki rek yaram yëpp def ay plaque waaw do leen koy dee di seetlu def ay plaque ay plaque yu dijji xam nga yu ñuul wala ay plaque yu dijji yu xonk euh, au début day xol voilà après ñom dañuy japp né wé ndoxum city la fekk du ben ndoxum city c'est parce que produit yooyu ñuy utiliser non mo leen koy def waruñu diw yooyu la ñu warul di diwo chaque jour que je mhm. am amna ay produits yo xamantene nit ñi dañ koy xeesalee té xéssal taxu ko mais kan ma war réglementer lolu yëpp tamit mais c'est fii lu ci dëkk bu mel Éthiopie fi mu toll nii ku fa jaay xeesal dañ lay tëj. dëgg la oh, dañ ko criminaliser. dañ ko criminaliser. ok xam nga ni loolu mënuñ ko def Sénégal bii nii. buñ ko fi defoon am na ñoo xamante ne dinañ laaxatu waaye nag jigéen ñi la foog ñuy xees nag. foog ñuy xees de. foog ñuy xees certes mais ah, xees moom foog ñu koy def moom. bu la neexee nga xees kenn dañoo xees kenn xeesal nit mën nga xees sans pour ah. autant nga jël yenn produit yoo xamante ne da nga koy diwoo mu yàq sa yaram bi. lu ci mel ni ay benn produit dinaa ko cité lu ci mel ni civique nit ñi dañ koy jël di ko xeesalee boo ko xeesalee 15 jours da ngay weex tàll non seulement dina la indil ay rew te civique du pour xéssal comme genre yi nii boo ko des fois mom nga ci di boko ko ci diwee da ngay gis ah, affaire da fay commencer faj mhm. mais bo fajoo ba mu wér da ngay arrêter c'est chimique c'est trop chimique oh dañ ko ciy ah bind sax dafa am corticoïde la tudd xaw ma loolu noonu nga xamante dafa baxul day xéssal bu baax légui boko ko ci diwoo bu la fajee paré nga continuer ko da ngay dem ba benen problème la lay indil bo xamante du faj légui jigen ñi mom lañuy jël jël sen diw def ci à moitié jël ñaari tube yi def ci def ci ndox ba mu fort ñu koy diwoo te ñëpp xam nañ ne produit chimique yi boo ci doolee ndox dafay gën a am doole ku ciy xeesal sax boo jëndee benn bouteille de diw mën nga ko jëndee 1500 francs dina am 3 mois diw bu di jeex ndax dañ ci dolli ndox di ko dugal ci frigo bi xam nga ne loolu c'est anormal nga jël sa yaram mën nga ci am cancer mën nga ci am problème yi nii lu nekk mën na la ci dal non problème de la xeesal moom ah il faut qu'on fasse un conséquence bi ci nekk tout le temps c'est très simple li tax ñu naan sax cancer c'est parce qu'on parle directement du cancer de la peau absolument c'est-à-dire que ça attaque directement ta peau et c'est des produits yoo xam ne ça va dans le sang ce que les gens ne savent pas ça ne s'arrête pas juste sur la peau

parce que tay euh, on remarque de plus en plus que les am produits comme Nicolas l'a dit, des produits ne sont pas à base d'hydroquinone c'est des acides de fruits bon après acides de fruits derrière c'est des c'est des c'est des c'est des acides hein. hein, comme comme comme on le dit donc le danger moi il bëree ci sa yaram tamit da indil ay effets négatifs. mais ba tay mo tane hydroquinone bi nga xamante voilà c'est c'est vraiment toxique quoi. et on parlait des mycoses alors looy tëjee Tata Maïté. voilà donc juste pour wax nit ñi ni que euh, ku ci am sensation bobu non wala nga jékki-jékki di gis ay plaques ci sa yaram bul jël n'importe quoi nga def ko ci. dama certi dermatologue bo démé ci dermato bi mom dina la wax exactement ban type mycose nga am ndax mycose de la peau bi ça se limite juste à la peau wala dafa nekk directement ci deret bi parce que habituellement dañu la def loo ay prise de sang pour ñu mun xam exactement bu dee loolu la ñu mun la jox traitement bi nga xamante ne ak ay antibiotiques ak voilà tout un traitement boo xamante ne da nga koy def moo xamante ne dafay euh, déjà fait champignon bi ci deret bi après euh, mun a traiter peau bi dinañ la jox ñoom euh, antiseptique yi nga war a def pommade yi nga war def et cetera te ñu bàyyi tamit genre ni nii amé ko amee da ngay muñ nga bàyyi di wokkatu parce que plus ngay wokkatu plus muy gën a muy gën a euh, di di jël place plus ngay wokkatu di partie sa yaram muy affecté yeneen partie non dafa neex ngay muy neex ngay mu ngi neex neex neex ba a sa musiba day plus tu touches la plaie euh, ça reste dans tes ongles ça sur tes mains tu nga laal sa beneen partie mu ñëw saxaat foofu parce que champignon champignon li nga ne dafay sax day màgg day day sax sax day nga temps que ça ça dépend comme degré euh, euh, infection en fait euh, voilà ban degré la selon nga ne traitement donc nañu am habitude comme tous les jours euh, la répétition est pédagogique nañuy éviter di euh, euh, bu ñu gisee dara lu ñu ci suñu yaram te bàyyi di def ay jugement yu xamul ay ndoxum ay ay nga dem di traité ndoxum siti ñu jox ay ay ay ay ay ngay naan tu tu te ce qui se passe ne li donc da ngay dem seeti docteur nga wax ko sa feebar moom mu xool diagnostiqué la bu dee jar na def analyse mu defal la ay analyse bu pare mu jox la traitement bi nga xam te ne boo ko defee ba pare di nga ci gis tan te dootul la sonalati. jërëjëf jërëjëf Maïté c'était la rubrique santé nous parlions de mycose